ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلو كدي جناب نسنتي اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نيجي أمبكتي di dellusi ak yéen ci waxtaan wi ñu dooroon te moodi di ashraatu saa mu di mandargay bis penc ci seen émission alhidayatu min alkitabi wa sunna seen xarit seen soppe di leen ko defal Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ànd ak seen xarit Makhtar Dieng Ndiaye ci seen rajo Safina FM ñu ngi sant di gërëm tabarakallahu soppe yi ak xarit yépp di ñaanal boroom kër gi alxaaji Hamidou Yoroban yal na yàlla dëgëral taxawaayam guddal fanam may ko wér sàmm ko sàmm njabootam yàlla defal ñu ko defal ko mboolem jullit بجاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نجي نيتم تبارك الله سنو جيجين دي سخن نيمبا مكي نجي وون تي الساعه te moo di màndargay bis penc ya fi ñu mujjee woon nag moo di dafa am màndarga yu nga xam ne dafay junju ne bis penc jege na waaye nag jege gi mën na sori waaw kemtalaayu ñun ni ñuy natte ak ni ñuy gisee waaye fa yàlla moom day jege lool waaw moo tax yàlla ne innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba am ci màndarga yoo xam ne moom bu yegsee rekk képp koo xam ne borom alwa nga daa xam ne àdduna li ko dee tukki li ko li li li des pour mu tukki bareetul daanaka yegsi na kon yii day wone iqtiraab yii di wane xulul xulul nag moo gën a jege iqtiraab ndax ba yàlla waxe ni iqtarabati saa wan shaqa al qamar ak léegi ëpp na junni at te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ne bi ma yàlla yónnee ak bi àdduna di tukkee tukki ñu ngi jegeyoo ne ñaari baaraam yi jegeyoo te moo di sababa ak wusto muy mu digg ak baaraam bi ngay joxañ boo dee xaste moom la ñu tuddee sababa mu digg boobu ni mu jege yoo ak baaraam boobu ngay joxañ soo dee xaste ñu tuddee ko sababa ñaari baaraam yooyu ni ñu dendee yonent bi nee na tukki àdduna noon la dendee ak yónni gi ko yàlla yónni kon mu mel ni màndarga yooyu dañu ko bëggoon a dëxëñ waaye am ñu ñaan ci mbokk yi ne nanu ko yaatal moo tax dana am ci yoo xam ne dañ ci dellu siwaat ci yaatal ngir rekk eh, mu gën a eh, leer ci boppu nit ñi tabarakallahu boppu soppe yi ak ñi nga xam ne eh, émission bi yitteel na leen mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon na ay mbir yoo xam ne daanaka dafiy jóge rekk yooya am mu gis ko ci ay saxaabaam e, wax leen ko e, mu mel ni bokk na ci ci gën a jege li ñoo tuddee mawqiatul jamal muy e, xew-xew bi doxoon diggante suñu yaay ju baax ja di sayyidatuna Aïcha ak imam bu mag ba di Ali nga xam ne ñaar ñooñu kenn ku ci nekk am nga taxawaay bu rëy ci diine am ko ci ëttu yonent bi kii di soxna kii di rakk waaye seytaane bëree na ba am yoon ci seen diggante ba ñu mujj loo bakkan yu bari rocca loola nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon na ko te yegg seegul moo tax wa min al fitan allati waqaat bacda qatli uthmana radiallahu anhu ما وقع في معركة الجمل المشهورة بين سيدنا علي كرم الله وجهه وستنا عائشة وسيدنا طلحة بن طلحة بن طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين بكنا في فتنة يغا خمنا يننتبه صلى الله عليه وسلم جنجون نني بكنا في يي وانيني إيه، بلا أدنا تكينجن جسكو موي فتنة بي دي مع موقعة الجمل mu mel ni nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu waxoon sayidna ali karrama allahu wajha وقد أخبر النبي سيدنا عليا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon sayidna ali ne ko yow de dana am mbir mu rëy mu dox sa diggante ak sama soxna Sidi Aïcha moo tax boo demee ci xadis ba ñu ngi jële xadis ba ci abi rafi mu ne anna rasula allahi sala allahu alayhi wa sallam qaala li ali ibni abi talib innahu sayakunu baynaka wa bayna aïcha amr yenent bi waxoon na sayidna ali ne ko mbir mu rëy dana dox sa diggante ak soxna si di saydatuna aisha qala ana ya rasulallah sayidna ali ne ko man yow yenent yàlla bi man nga wax ne mbir dana dox sama diggante ak saydatuna aisha qaala naam yonent bi ne ko waaw waaw qaal sayidna ali ne ko kon fa ana ashqaahum ya rasulallah su boobaa day may ki gën a bon ci ñi nga am qaala la yonent bi ne ko déedéet walla sori nga sax loolu dafa fekk ne fitna la rek boo xam ne seytaane dana ko tàbbal seen diggante waaw waaye nag li ma lay sant loolu su ñëwee na nga ci ànd ak xel ànd ci ak sago ba boo ko jëkkoo yërëm ko ba teg ko ci barab bu wóor bu ko dara dul laale waaw moo tax yonent bi ne ko laa walakin ida kaana dalik fardudha ila mamaniha nga gis ni jaam dafay nangu dogalu yàlla léeg-léeg mbir xew fu mu warta xewe waaye bu fa fekkee sago fekk fa jikko lu naroon a ñaaw rek dana rafet waaw moo tax yeneen ti sallallahu alayhi waxul ne jàmbaar mooy ki mën a dóor dóor wala ki mën a yëkkati ba ca kaw daaneel yëkkati daaneel déedéet nee na jàmbaar mu ngi ci ki mën a am maîtrise ci jamonoy fitna ak jamonoy mer waaw waaw mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda algadab mu mel ni loolu la doon jàngal taalubeem di rakkam di soppeem di ku mu wóolu yar ko jàngal ko muy sidna ali mu wan ko ne ko bis dana ñëw soxna si may denc seytaane dox seen diggante waaye lii laa la dénk mu mel ni fitna boobu ba mu ñëwee itam taxawaay boobu Seydina Ali mosu ko fàtte moo tax itam ba mu jekkoo soxna si fexe na ba teg ko ci gëléem gu gën a rafet ga mu waroon boole ko soldaar yu ko garde ba mu dellu ca néegam mu mel ni li nu mën a jànge ci mawqiatul jamal moo di ni sayyidatuna Aïcha ak sayyiduna Talha ak Zubayr seen yéene nekkul woon ci génn di xeex ak sayyidna Ali dañu génnoon rek pour lu yéwénal diggante jullit ñi loolu nag ki ko soloo moo di xaakim moo ne génn bi sayyidatuna Aïcha génnoon ak sayyiduna Talha ak Zubayr seen yéene nekkuloon xeex seen yéene moo doon fexe ba jullit ñi ànd ba li nga xam ne mooy ñuul seen diggante dañ li waral lool nag moo di ku ne xam na ne Seydina Ousmane bi ñu ko reyee li ñu bëggoon mooy mu am justice boo xam ne dana taxaw ci acte ñu nga xam ne ñoo ko rey waaye comme moo doon président di buur ñu boom ko bu fekkee wuutuwuñu ko taxawal buur boo xam ne dana mën a indi sécurité boo xam ne dana mën a gëstu ñooña ba jàpp leen ñu àtte leen mbir mi dara du ca baax moo tax bi ñu boomee Seydina Ousmane euh, saxaaba yi yëpp dañu jóg fekk Seydina Ali ca këram ñu ne ko tàllalal sa loxo ñu jaayante yow fekk na boobu itam Seydina Ali tuumaan ko topp ndax ñu bari toqal nañu ko ci deretu Seydina Ousmane ci ne Eh, moo ko rey walla moo santaane ñu rey ko bu mu giñ ca giñ goo xam ne ku ne xam na ne bu giñul woon sax wax dëgg yàlla set na ndax ku baaxe ne Seydina Ali du rey mukk ku baaxee ne Seydina Ousmane radiyallahu anhuma yàlla dogal ñi nga xamante ni ñoo reyoon bëgguñu woon mukk mbir mi leer ndax bu boobaa seen bakkan mu ci xottu nen loolu tax ñoom itam ñuy indi fitna boo xamante ni dana tax mbir mi lëj ba kenn du leen tal ñu raaxaloo ci biir nit ñi ñi ànd ak Talha ak Zubair ak sayyidatuna Aïcha ñi ànd ak sayyidna Ali ngir mën a lëndëmal mbir mi ba nga xamante Eh, kenn du leen mën a àtte loolu taxoon nag bi mbir mi demee ba tar nga xam ne fëlaxoo am na salfaañoo am na kenn déglootul kenn buur amul président amul kenn amul ah Seydina Ali nag war a jóg nag jël responsabilité eh, ñu jaayanteeg moom ndax bu loolu amul du ñu mën a taxawal nag justice bu mën a àtte ñooñu nga xam ne ñoo rey Seydina di xalifa bu baax boobu nga xam ne yonent bi may na ko ñaari doomam mayoon na ko euh, Ruqiya may ko itam Umu Kalsum mu mel ni bi nga xamante ni na dogal na Seydatuna Aïcha E, dajeeg Talha ak Zubayr ñu waxtaan ñu ne fitna kat am na ci jullit ñi fokk ñu jéem a seet nu jullit ñi àndi yéewénoo yàlla dogal nag eh, ñoom ñu ne moom Talha ak Zubayr ci ne bu fekkee ne jiital nañu saydatuna Aïcha amaana bu ko nit ñi gisee dana am lu bari lu mu wàññi ci ñoom ci seenu mer te itam lu ñu bëgg a doxal xëy na ci yewenal daañu ko mën ndax daañu rus soxna si daañu ko xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa ndax taxawaay bu rëy bi mu amoon ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa wante yonent bi sallallahu alayhi wa am na lum daan wax ak njabootam mu di ay junj yoo xam ne euh, képp ku nekkoon ci wetam léeg-léeg da gis dara ne ah lii day sang bi waxoon na ma ko bokkoon na ci lii nga xamante ni waxoon na ko saydatuna Aïcha moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax dafa toog ba jikki mu daal di dajale soxnaam yépp نلن أيتكن صاحبة الجمل الأديب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو من بعد ما كادت ينتمي صلى الله عليه وسلم بمدجل يا صحنا ميلي لنوح أنا كنتيين mooy borom géléem gi nga xam ne kanam gaa nga sëq ak kawar mu génnoon nag ba xaji xaw ab yële di ko mbow ndaw soosu nga xamante ni maa ngi koy wax te mu nekk ci seen biir moom day daañu rey ñu bari ci ndeyjooram daañu rey ñu bari ci càmmooñam waaye nag moom dana mucc kon yonent bi laajoon na laaj boobu ci biir yi soxnaam te boobu sayyidatuna Aïcha mu nga fa mu laaj moom yonent bi ne yéen soxna yi ana kan ci yéen mooy borom géléem gu sëq kawar gi ci kanamam ana kan ci mooy borom géléem gi nga xam ne kanam gaa nga sëq kawar ci xaju xaw ab yi di ko mbuw te ñu bari di dee ci ndeyjooram ak càmmiñam gannaaw loolu itam moom dafay mucc du dee sayyidatuna Aïcha keroog ba mu àndee ak sayyiduna Talha ak sayyiduna Zubair bi mu ñëwee ba ca yoon wa gis na ay xaj yu koy mbow mu laajte ne waaw xaj yi di mbaw yan xaj la ñu ne ko moo di xaju xaw ab xelam na yar ca la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu xool gëléemam gis kanam ga sëq ak karaw mu gis ñaari màndarga yi yonente bi waxoon gëléem gi mu war kanam gi dafa sëq te itam xaj yi ko euh, dimbaw xaju xaw ab lanu xew ëpp nag barab la boo xam ne jege na lool basra e, am na ñu ne wa huwa min miyaahil arab fil jahiliya bokkoon na ci e, ndoxi barab yi ndoxi arab yi nga xamante ni daan neen fa faral di roote e, bu fekkente ni nag da nga jëm màkka wala nga jóge makka nee na mu ngi nekk ci diggante Makka jëm Basra ñu ne nag tudde nañ ko xaw ëpp nisbatan li abi bakr eh, abi bakr ibnu kilaab ñu ne itam déedéet ñu ngi ko tuddee xaw ab nisbatan lil xaw ab bintu kalb ibnu wabrata al qudaiya kon e, e, barab la daal moom xaw ëpp xaj ya fa nekkoon ñoo doon mbëw soxna si te kat loolu yonent bi lu jiitu muy génn àdduna naa Aïcha déggoon na mu wax loolu ci biiri soxnaam te xamul woon ne loolu e, moom la sang bi di junj ci ne bu fi génn génnee àdduna moom yonent bi dana am ci soxnaam koo xam ne dana takk xare xare ak Ali te mbooloo mu bari daañu ca dee waaye nag lay def màndarga ye mooy ndaw soosu giléem ga muy war kanam ga dafay sëq kawar nee na itam te dana am xaj lu koy mbaw moo tax ibnu taymiya radiallahu anhu wax na ne inna aishata lam taxruj lil qital wa innama xarajat bi qasdi al islaahi bayna وظنت أن في خروجها مصلحة أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين مملني سرين بباخبي دي ابن تيمية رضي الله عنه نانا سيدتنا عائشة نينا يينم نكلون تيجن خيخ أك سيدنا علي نانا دفر رك أك لو يوينل ديجت جولتني موكا تخونا جب ndax fitna bi nga xamne eh dara lu dul rey gi ñu rey Seydina Ousmane te kuréel bu beew a ko rey pour ñu mën a yéwénal seet ñi nga xamante ni ñoo ko rey ñu àtte leen mu foogoon ne itam génn gi muy génn intérêt jullit ñi la waaye nag euh, gannaaw si gi li ci xew ci la xewe moo taxoon rëccu na saa bu masaana toog ba fàttali ko xew-xew boobu daan na jooy di jooy ba kaalaam tooy moom sayyidatuna Aïcha ndax musul dañ di fàttalikul xew-xew boobu ndax bakkan yi ca rot bari na noonu itam la ko Zubayru defe noonu la ko Talha defe noonu itam la ko Seydina Ali defe ndax xew-xew bi daanaka ci diggante ñett ñooñu la moo tax e, bi ñu jàmmaarloo nga xamante ni sannantenano ay gaddu ba dëppoo nara am seen diggante te moo di ñu fexe ba mbooloo jullit ñi nekk benn boowatu ci ginnaaw sidna ali mu nekk xalifa yilif ñëpp ñu seet ki nga ñi nga xamante ni ñoo rey ñu rey leen bi ñu demee ba loola des ca ba ñu jegeyoo ci kaddu ña defoon mbir ma fekk ñi ngi raaxoo ci seen biir ñooñu ñoo tëb rek daal di indi anarchie indi wuute indi ñàkk déggoo ngoo xam ne euh, ñu ngi ko jaarale ci fitna boo xamante ni daanaka ñoo njëkk a dóor ñoo njëkk a song ngir xam ne mbir mi bu leeree du baax ci ñoom loolu tax ña bokk ca ñoom te féete ci Seydina Ali ñoom itam song ña bokk ca saydatuna Aïcha ñoom itam song waaw ña bokk ci saydatuna Aïcha song ña bokk ca saydna Ali song fekk ña sell ca ñoom songuñu waaye ña def mbir ma ñoo song pour labeje mbir mi léegi nag waa kër saydna Ali ñoom itam jóg pour défendre seen bopp ña féete ca kër saydatuna Aïcha ñoom itam jóg pour defendre seen bopp fekk ñi song ca mbooloo male ak mbooloo me yépp mooy saay-saay si defar mbir mi léegi nag fi filaxoo daal di am xeex daal di am fekk booba soxna si mu ngi toog ci giléemam waxul diglewul xeex deful dara si Seydina Alioune itam diglewul xeex deful dara wante kenn mënatula téye mbooloo mi ndax fitna jóg na seytaane dugg na ci seen biir léegi nag ci la xeex ba commencé ba bakkan yu bari rot moo tax euh, loolu nga xamante ni yàlla dogal na mu xew kër yonent bi sallallahu alayhi moom mooy fitna bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa na ko ne balaa àdduna tukki jullit ñi daañu dund fitna boobu mu mel ni euh, li ëpp ci ñi nga xamante ni toppoon nanu comme ni ko Seydina Ibnu Taymiya waxoon waxee nee na wa aktaru alladina kaanu yaxtaaruuna alqital min altaifatain lam yakunu yutiuuna la aliyan wala muawiya waaw kooku bu fekkee da dem ci marika maarakatu siffayn moom itam mu di beneen xeex boo xamante ni ñëw na ci diggante Seydina Ali ak Muawiya gannaaw ba nga xamante ni maarakatul jam mawqiatul jamal weesu na nga xam ni Seydina Ali loo naag jigéen ju tedd yoo xam ni e, miin nañ ko ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa mu di doom ci ku tedd di Seydina Abu Bakr bakkan yu bari rot ca ku ne xam na ni loolu fitna la ñu jóge ca mu dalaat ci kaw Muawiyatu bnu Abi Sufyaan ci mawqiatu siffin mu mel ni yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, junjoon na ko ba waxoon na ne itam e, dana am mbooloo mu génn mbooloo moomu moo di xawaarij yi xawaarij yi nag ñoom e, dañu nekk ay jeunes yoo xamante ni gannaaw bi yonent bi xe bi Seydina Ali xeexee ak euh, Muawiyatu bnu Abi Sufyaan ci maarakatu Safayn ñoom ci lañu génn topp nag ci Seydina Ali ndax Seydina Ali lañu àndaloon ñu génn nag opposé ko déggaluñu ko ba pare nag e di def ci diine ji loo xamante ni dëppoowul ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi jàngale te ku ne xam na ne yonent bi mooy dëkku xam-xam wala mooy néegu xam-xam Seydina Ali moo di buntu ba kon nag kii ñu jàmmaar lool mënuñu def ci diine lu mu xamul mënuñu wax ci diine lu mu déggul ndax moom ci boppam mooy bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour nga mën a dugg ci yonent bi foog nga jaar ci sayidna ali karamallahu wajha kon nag moo ñoom ki ñu dajeel mooy ngënk mu nga xamante ni kenn mënul am dara ci yonent bi te jaaruloo ci moom moo tax boo demee ci saxiixay ni jële neen ci sayidna ali ibnu abi talib radiallahu taala anhu mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية من سيدنا علي كرم الله وجهه وخنني na نتي يونتي صلى الله عليه وسلم sallallahu sa yaxruju qawmun fi axiri zaman dana am mbooloo moo xam ne daañu génn ci mujjug jamono nee na mbooloo moomu nag ahdaasul asnaani ay xale lanu kon ñépp ay jeunes lanu sufahaul ahlaam nee na xel yu dof lanu yor nee daañu wax nag lu bari ci wàllu xadis daañu dégg nga ñu mën a nettali xadis lañu ñu mën alquran lañu waaye nag seen ngëm yàlla jéggiwul seen boli ya maanaam ngëm nga yeggul ci seen xol te daañu tuddoo ay jullit lañu nee na génn ci diine nag yamruquuna na ad diini kama yamruqu sahmu min arramiya ni ñu gaawee génn ci diine nee na gën na gaaw nee na fett gu ñaw bu borom doole sànni nee na mu dal ci rab ba bëtt biir ba ba génnaat nee na génn ci diine gën na gaaw nee na génn fett googu ci biiru rab woowule yonent bi nee na fa aynama laqaytumuhu faqtuluhum fu ngeen dajeek ñoom na ngeen leen rey fa inna fi qatlihim ajrun ajra nee na rey gi ngeen leen di rey nee yiwu yàlla ngi ci fa inna fi qatlihim ajra liman qatalahum yawma alqiyama nee na képp koo xam ne rey nga leen ray gi nga leen rey nee na da ci am yool ëllëg yawma alqiyama moo tax sayidna ali karamallahu wajha mu njëkk a wax ne ñii day ñooy xawaari ci yonent bi sallallahu alayhi doon junj kon na xeex ak ñoom farata la moo tax eh, fii Seydina Ali dëgg nag moo di ci xam-xamu baatin ak dégg-déggam ci diine bokk na ca xale yooyu amul kenn koo xam ne rek bokkoon na ci ñi daan toog ci keppaaru yonent bi kon kenn ci kibaaru saxaaba bokkul ci xale yooyu ay ndawi kese leen yoo xamante ni bi ñu juddoo fekkewuñu wu ñu jamono yonent bi sallallahu alayhi kon ay ndaw lañu yoo xam ne kenn fekke wu ci badar kenn fekke wu ci uhud kenn fekke wu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gisu ko ci kon ay xale lañu yoo xamante ni daanaka dañ leen war a jàngal lislaam waaye du ñoom ñoo war a jàngale lislaam waaye nag dem neen ba am ay gis-gis ci diine e, di indi seeni xalaat di am lu ñuy soppeek lu ñuy dugal lu ñuy génne waaw moo tax e, li ñu njëkk a def mooy fekk ay aaya yoo xam ne dafa wàcc ci ay yéeféer nee nañu ñu koy askane ay jullit te nag loolu sax bari na ngay gis euh, ci boroom xam-xamu léegi aaye boo xam ne yàlla yéeféer la ci waxal nga koy moomale jullit loolu xawaari ci ñoo ko njëkk def kon nag nanu jël aaye yi ñi ko yàlla moomale ñu moomale leen ko ndax Seydina Ali mosul d'accord ak ñoom ci loolu moo tax euh, bokkoon na ci seeni mbir ñoom ak yi ñu soppi ci diine nga xamante ni balaa bu rëy la woon mooy daan doon wax ne sax lii ñuy tuddee rajmul muhsin nanu ko bokkul ci diine te mooy lan ku njaalo ñu rey la nee na bu fekkee da sangewu ñoom dañ ko dindi woon ne loolu daal bokkul ci diine buñ dee dagg loxo sàcc itam duñu ko dagg fi sharia wax mais ca mbagg ma lañ koy dagge loolu itam boole woon neen ko ci nañu déggee diine nee na itam bokkoon na ci seeni njàngale ñu wax ne jigéen bu indisposé julli wàccu ko mën ne julli loola bokkoon na ca seeni gis-gis ak seeni jàngale daan doon wax ne itam képp koo xam ne doo digle lu baax di tere lu bon nee na te mën ko soo ko deful ab yéeféer nga ñoom dañ daan jàppale ne jàppe ne ki mën a digle lu baax di tere lu bon te defu ko nee neen kooku ab yéeféer la te loolu ku ne xam na ni ah digle neen ko nag baax na principe la ci diine waaye taxul nag nit ki e, bu ko deful nekk yéeféer ñoom nag dañ daan wax ne ku ko deful rek yéeféer nga bu fekkente ne euh, maanaam mënuloo ko dañuy jàpp ne def nga bàkkaar bu rëy kon ñooñu buñ leen arsu dañu dem ba alquran dañu ko soppi ci seeni gis-gis ak seeni philosophie bopp moo tax euh, sayidna ali karamallahu wajahahu xeex na ak ñoom ca nahrawaan euh, rey ci ñoom ñu bare bare tabaarakallaahu mu mel ni boo ko dee topp da nga gis xew-xew yu bari yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko daan junju ne balaa àdduna tukki daa ngeen ko gis ndax ci mandarga yi la bokk na ci yi ñu fi tudd mawqiatul jamal bokk na ci e, sifayn bokk na ci e, zuhurul xawaarij yi nga xamante ni Seydina Ali karamallahu wajahu waxoon na ne yonent bi wax na ne balaa àdduna tukki daa ngi gis moo di ndaw yi ñu fi tudd te nag seen philosophie boobu ba léegi eh, mu ngi fi ndax am na ndaw ñoo xamante ni eh, duñu firi alquran ni ko mag ñi daan firee dañuy ñëw ak seeni xalaati bopp di ko firee nu mu leen neexee te loolu itam wax dëgg yàlla jiituwuñu ci ndax xawaari yi ñoo leen ci jiitu eh, am na beneen fitna buñu tuddee fitnatul qawl bi xalqil quran mooy ñi nga xamante ni dañu jëloon alquran ni mbindeef la te loolu feeñoon ci abasit yi ndax ku ñu wax Maamun fexe woon na ba ñu dugal loolu ci boppam te mu'tazila yi ñoom ñoo ko def dégg nga euh, mu nekkoon nag fitna boo xamante ni dem na ba diviser jullit ñi jullit ñi nekk ay kuréeli kuréel kuréel yooyu nag yonent bi sallallahu alayhi wa euh, tuddoon na ko ne balaa adduna tukki julit ñi dañu nekk kuréel yu bari boo demee ci xadis bi nga xam ne sayidna abi hurayrata radiallahu anhu moo ko wax nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni iftaraqat alyahudu ala ixda aw ithnatayn wa وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرق أمتي على ثلاث wa sabaina firqa rawahu rawahu ashabu ñu ne xadis bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu waxoon na ne yahud yi day tàqalikoo woon nanu ba nekk ay pàcci pàcc bi maanaa ay mbooloo yi ay groupe yi groupe seeni daayira bari woon na lool ba yegg ci Eh, soixante onze wala soixante douze waaw am na ñu ne soixante onze am na ñu ne soixante douze eh, yahud yi te mooy juif yi àgg nañ ci kuréel yooyu le nee na nasaraan yi itam seeni kuréel àggoon na foofu àggoon na ci soixante onze kuréel wala soixante douze kuréel yonent bi sallallahu alayhi nee na man nag sama xeet daañu yegg ci soixante treize waaw daañu yegg ci soixante treize mu mel ni kon Euh, mi ngi gëna a ak gise tàqalikoo boobu ci jamonoy abbasid yi ndax dem nañ ba nga xamante ni euh, maanaa mboolooy mbooloo génn nañu kenn ku ci nekk ak sa philosophie ni nga déggee diini ni ngay firee alquran euh, tabaarakallahu ba mbooloo yooyu dem na ba indi ay fitna yu bari ndax wax nañ ne sax kilifa gi nga xamante ni moo di eh, Ahmad ibnu Hanbal radiallahu anhu doon na défendre ne alquran du bindeef ba tëj nañ ko ci dóor ko ci dóor yu metti yu nga xam ne am nañu wax ne kaso biñ ko tëjoon doon ko dóor dañu takk loxo yi ca kaw dégg nga mu taxaw ñu koy dóor waaye dóor nañ ko ba gëñu tubayam daldi di waaye ci pas-pasam bu rëy ci yàlla ak njàmbaaram ak xam-xamam ak ngëmam gu sell ak pas-pasam bu dëgër digganteem ak boroomam ci la ñaane yàlla ne ko défendre sa diine moo tax ñu teg ma fitna bi ma supporté ko nangu ko te moo di nangu ma mukk ne alquran mbindeef la dama jàpp ne alquran yàlla la ndax ki ko wax yàlla la kon nag kalaamu kalaamun qadimun la azali wax la boo xamante ni kenn mënu ko génne ci yàlla kon du mbindeef léegi nag ñu ngi may dóor sama géñu tubéy dagg na soo intervenirul dikk sa ndimbal ak sa yërmande daañu gis sama awra te saay saay sii bëgguma ñu gis sama awra mu ñaan ca kaw ñi koy dóor di dégg mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ñii di ma dóor yàlla buñ gis sama awra te sama gañu tubay dagg na ñi ko doon dóor ñoo wax ne gis nañ loxo bu ko wër ndomb di ko takkaatal géñoom waaw géñoom ga te loxo boobu day du loxo kenn ca ñoom ña ko doon dóor mu mel ni fitna yeggoon na foofu ñi nga xam ne ñoo doon ñooñ jamono di njobbaxtal di ay montagne ci xam-xam àggoon nanu ci di leen fitnaal ci di leen génnee ci seen seeni dégg-dégg te ñoom ñëpp di ay julit te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di wax ci turu islam kon fitna boobu yonente bi sal alai wasallam eh, tuddoon nee na bokkoon na ca mandarga ya kon feeñoon na naam ci bi yonente bi génnee àdduna ndax gis nanu eh, waa Medina taxaw di laaj xilaafa gis nañu muhaajiroon yi taxaw di laaj xilaafa gis neen Banu Hashim taxaw di laaj xilaafa ginnaaw si gi gis neen tabarakallahu bi Seydina Ousmane génnee àdduna gis neen Seydatuna Aïcha ak mbooloom Seydina Ali ak mbooloom gis neen itam xawaarij yi ginnaaw loolu itam tabarakallahu gis ngeen ñii nga xamante ni feeñ nañu te mooy mu mu'tazila yi ak ñi mel ni moom yooyu yëpp di ay mbooloo moo tax mbooloo yi yonent bi waxoon ba léegi tabaarakallahu ñu ngi fi waaye benn kuréel rekk ci mucc kuréel boobu nag yàlla nañu ci yàlla boole bokkoon na ci màndarga yi yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon e, li mu waxoon ne balaa àdduna tukki xeetam ñu topp di toppandoo dégg nga comme dégg nga di toppandoo yahut ak nasaraan waaw di toppandoo yahut ak nasaraan te di leen roy waaw nekk jullit ba pare e, maanaa jëlutuloo yonent bi mu nekk sa idol e, ngay solo na mu daan solo di wax na mu daan waxe di dund na mu daan dunde topp sunnaam mukk yow kay sa lislaam moom ci sa làmmiñ la yem waaye boo xoolee sa col tuba bi nga roy ci sa wax tuba bi nga roy ci say jëf tuba bi nga roy si lépp tuba bi nga roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waxoon na ne bala aduna tukki nee na jullit ñi daañu dem bay roy yahut ak nasara mu mel ni في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك نينا يونتي صلى الله عليه وسلم وخنني نانا أدون دوتك موك نينا لدول بسما خيت نينا دانيو نانا توب خيت نانا شبرا bi chibre nee na xasaba xasab nee na eh, ziraan bi zira xasaba xasab nee topp goo xamante ni dafay jéggi dayoo fu tubaab bi teg tànkam nga teg ko fa nu mu waxee nga noonu ngay waxe nu mu doxe noonu ngay doxe nee na bi mu waxee loolu saxaaba ya ne ko waaw comme ñi nga bëgg a wax ne xeet wi dana leen toppandoo xanaa mooy furs ak ruum mu ne ana laa war a jublu ci sama wax lu dul ñooñu mbokk yi ah ñun jullitu Sénégal de defe naa ne sañu ñoo weddi loolu ndax ku ne xam na ne eh, ñun moom eh, waxuñu sax roy waaye roccem ngeer lañ ko def ba ci feetu Noël yi nga xamante moom lu ñu tuddee 31 décembre daanaka bu ñëwee day mel ni suñu feet lu ñun jullit ñi ngir roy ku ëpp waxuñ ca pantalon ya waxuñ ca tabarkalla te nga xam ne suñu mag ñi bëgguñu woon a roy tubaab bi sax xattaa ci sol ci sol waaw am na benn kilifa waaw muy sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu mës na gis ci njabootam koo xam ne pantalon la sol rek mu naqari ko waaw ba mu digle ne na ko summi waaw gis kenn ci doomam mu sol jàllaa bi jiital pantalon ci biir mu naqarlu ko ne neexu ko bu sañoon ñu summi ko kon defe naa ne ah la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon suñu mag ñu baax ñooñu ñoom mucc nañu ci moo tax benn góor gu baax daf may wax ne eh, ku ne xam ne ne sëñ kër Si radiyallahu taala anhu jàngoon na tubaab ba ciy liggéey waaye eh, su dee lakk tubaab donte ci olof la koy waxe nee na du prononcer baat ya pour neexal ko ngir roy tubaab bi bu waree wax commandant nee na du ko du ko du du du ko prononcé comme ni ko tubaab di waxee danaan commandant waaw commandant ngir rek bañ a roy dara dara dara dara ci tubaab bi kon euh, bokkoon na ci màndarga yi roy gi nga xamante ni tabaarakallaahu ñu ngi koy roy tubaab yi tabaarakallaahu am na ñoo xam ne tey euh, foog nañ ne bu ñu làkkul tubaab dégg nga waxuñu ndax defe nañ ne wax daal mooy làkk tubaab waaw defe nañ ne itam yére mooy sol costume wala sol jiin waaw ndax ku ko buñ ko deful rek ñoom bokkuñ ci nit ñi waaw defe nañ ne itam vacances moom eh, dem Paris rek waaw dem Paris wala dem Londres wala dem Amérique foofu mooy vacances te jullit ñu baax ñi ñoom jàpp nañ ne vacances mooy dem umra waaw dem umra waaw dem ca kaaba gu tedd ga e, jaamu fa yàlla def sa naafila ci wàllu xaj defe naa ne moo leen di gënal ñu dem Paris wala ñu dem Londres wala ñu dem États-Unis di dem ci ay barab yoo xam ne e, doo fa am yàlla lu dul ba bàkkaar rek nga fa am te loolu itam e, ñi ëpp ñu koy def ay tabarakallahu jullit lañu ci lislaam la ñuy waxe buñ dee wax nga foog ni tabarakallahu ñoog yonent bi ñoo yendu démb wante seen lislaam ca làmmiñ wa rek la yem boole ceeg itam roy tubaab bi ba nga xamante ni jàngum l'école lañu gën a gëm ci seeni doom jàngu daara ndax foog nen ni ci l'école bi rek la seeni doom war a tedde waaw loolu lañu foog ne ci lekool bi rek la seen doom war a tedde tey ñaata xale lañu jël dugal leen ci l'école yi te ñii ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu amuñu place amuñu palto ñii mujj nañu nekk marchand ambulant te seeni wayjur ñu ngi leen dugaloon ci lekkoolu tubaab yi ñuy jàng ñii mujj nañu tabaarakallaahu ah di ay commerçant ubbi boutique ñii ubbi leneen ñii sax mujj nañu dem di bay waaw te kat seeni wayjur yaakaar la ñu amoon mu mel ni kon mbir mi wërsëg la rek waaye eh, ki koy joxe moom aju ko ci làkk sàngam walla tabaarakallaahu ndax gis neen fi ñoo xamante ni tey tedd nañu am na du ne te jànguñu sax gis neen fi ñoo xamante ni tey ci daara yi la ñu jóge waaye tabaarakallaahu yàlla defal na leen xéewal yoo xamante ni ñu ngi baawaan ba ñoom sax embauché nañ ñoo xamante ni daanaka ci lekkool yu mag yi la génne te loolu kenn defu ko ku dul yàlla kon nag booy roy roy yonent bi sallallahu alayhi booy toppandoo toppandoo lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat toppandoo yahut nasaraan yonent bi sallallahu alayhi wa na ko ba wax ne balaa àdduna tukki ñu bari ci xeetam daañu dem ba seen waxin ak seen doxin ak seeni jëfin lépp ci tubaab bi leen koy royee waaye du ñu royee dara ci moom moo tax loolu itam bokk na ci màndargay ah bis penc mooy lan roy tubaab bi roy yahud bi roy nasaraan bi eh, mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa comme ni ñu ko waxee woon rek ci wax waxtaan yi jiitu amul dara loo xam ne bàyyi na ko lu dul ba leeral na ko ci ginnaawam ngir rek njaboot gi mën a xam fi ñuy teg seeni tànk ndax bu ëllëgee ñu mën a jubóog seen boroom ndax yonent bi moom la yàlla yónni te itam lépp lu mu wax yàllaa ko ko waxloo laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa kon nag lépp lu mu ñu wax rek dafay dëppoog li yàlla bëgg te itam day tax ñu mën a jege suñu boroom ndax yàlla kat kenn mënta ànd ak moom ci alal kenn mënta ànd ak moom ci juddu kenn mënta ànd ak moom ci daraja yàlla ci jikko rek ngay àndeek moom waaw ci jikko ngay àndeek moom bu sa jikko rafetee nga nekk xaritu yàlla bu sa jikko ñaawee nga nekk noonu yàlla kon nag fexe ba defar si jikko dégg nga euh, mën a nekk xaritu yàlla moo taxoon yonent bi yàlla yónni ko mu ñëw ne innama buxistu li utammima makarimal axlaaq kon nag mënoo amee fenn jikko fu dul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko dafay daal di nekk farata topp ay njàngaleem dafay daal di nekk farata te moom ñaawlu na ab julit di roy ab nasaraan te waxoon na ne eh, bala aduna tukki daa ngeen ko gis te bu ngeen ko gisee day wane ne aduna mu ngi bëgg a tukki wa fi hada zaman kathirun fi lmuslimina man yatashabahu bilkuffar min sharqiyina wa garbiyin bu ko defee jamono bii nga xamante ne ñu ngi koy dund ñu bari ci jullit ñi ñu ngi niru nirulu yéeféer yi dégg nga su ko defee suñu góor ñi ñu ngi niru nirulu góor yi yahud yeeg nasaraan yi suñu jigéen ñi itam ñu ngi leen di niru nirulu ba tax na loolu ngay gis tey euh, xale bu jigéen bi dem jënd cheveux naturel te kat yàlla jox na ko kawar goo xam ne kawar googu la juddoo mu rafet lool te bu ko defaree mu jekk lool ci moom mu bàyyi ko fa dem wuti cheveux naturel lu tax pour moom itam mën a niroog euh, américaine bi ñu koy jaawaleeg moom su ko defee nag ba góor ña jóge di niru nirulu nee na góori tubaab yeeg nasaraan yeeg yahut yi ñoom itam ci la suñu jigéen yi ñoom itam jógee di niru nirulu ñoom itam ah, seeni jigéen su ko defee ñu foog ne duñu mën a avancer duñu mën a yéeg mu ci dund bu kawe lu dul ba soloo nañu nañuy solo di waxe nañuy waxe di doxe nañuy doxe su ko defee nag ñu sànni téere yàlla ba sànni sunnay na muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku jàng lislaam bu wér nag da xam ne jullit ñi seen melokaan bii du melokaanu jullit dëgg dëgg dëgg dëgg jullit dëgg dëgg dëgg am na nu muy mel ci wax am na nu muy mel ci jëf am na nu muy mel ci sol moo tax boo xoolee jullit ñi sori nanu lool njàngaleem lislaam nee na itam e, mooy nanu pas-pas ba waaw daanaka ngëm nga nekkoon ca mag ma mag ña pas-pas bu wér bu ñoo àndee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon lislaam bu wér da ngay gis ne wàcc nanu yoon wa kon nag kon nag desewuñ ci lislaam lu dul tur wa mooy man di jullit laa waaye seeni attewoo yëpp ñu ngi koy teg ci luwaa tubaab bi ba sax ci wàllu miraas boo ko dee xool tey ku ñu miraas ci diine nga mer lislaam moom kuñ ci miraas rek surtout jigéen ñi ah, góor ak jigéen a war a tolloo ndax góor ñi léegi amatuñu njariñ nangam ak nangam lu ci sa yoon ndax góor am na njariñ wala amul njariñ yàlla ci boppam moom moo wax ni góor ñaar jigéen benn kon nag yow bu fekkee gëm nga yàlla looy xalaatee luwaa tubaab bi tëral ci égalité yemale góor ak jigen lol lépp tuba be ko teural pour alak la pour bëgg nga juboo di ak sa borom kon nak fexel bu bul sori mukk sharia yàlla bi ndax sa intérêt nekul fofu ndax lu dund bi neex neex da nga xëy wéet ko xamné mo lay atte ci lépp lo doon jëf fi ci ko suuf te moy ki la sak ki la indi te ken xamula ki la wutal wayjur ki la fi may ay fan pour ngay dund te modi sa borom kon nak nga laway ki mu ñu jox mu di yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko idol def ko lajal, laajal jàngal siiraam na mu doon doxali ci kërëm ci ciol na mu doon waxe moom yonent bi rek nga saña top ba ca douche nam ko doon duggé moom dong nga saña top ba nam doon soxna lu ndax lepp ma rafet kon na ku mel nonu boko fi bàyyee di wut keneen ko top top ga du la indi lu fitna motax tax yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah du ngeen dañ di top nak yahut ak nasaran te modi tuba bi neena na pax ak pax pax pax ak pax pax mu ñu dugg ngeen fekk leen fa ñu gennat ci duggaat ci benen pax ngeen fekk leen fa ba bu ñu duggoon sax ci paxu mbeut neena ngeen fekk leen fa kon euh lolu bokku na ci mandar gay kon nak yow julit bi na nga gëm bu baax ci ne yaa gën yéeféer bi waaw yaa gën yéeféer bi waaw gën bi nga gën yéeféer bi nag tax na moom moo la war a roy waaye yow waroo koo roy moo tax imaamu nawawi di wax ne wal muraadu bi shibri wa ziraa wa joxri bob at tamsil bi shiddati muwaafaqa lahum nee na li li ñu namm rek nee na ci shibran bi shibr wa ziraan bi ziraa ak joxra dab te mooy paxum bët bu bu bu fa buñ fa duggee sax ngeen dugg fa nee na du dara lu dul rek roy gu ëpp gu tar gu ñuy roy tubaab yi waaw mooy lan ànd ak ñoom ci lépp luy mooy yàlla ñu ànd ci ak ñoom waaw tubaab daf lay gëmloo ne politique ay fen la fen ci aayul nga gëm loolu di fen te fen ci kabaayir yi la boo demee ci laxdar yi sax laxdari ngi wax ni bu lay wax bakkaar yi daf naan wa yaxrumu alal mukallafi alkadibu fen la njëkk tudd fen moo mën njaalu moo mën jëw moo mën sàngara moo mën bàkkaar yépp mooy fen waaw su ko defee nag ah nga ne tubaab bi ngay roy comme moom ngay roy nag te politique aayalu ko fen ca ngay fen rek di ca yàq sa deru moroom sa deru nawle di xas sa mbokku jullit te yooyu yëpp ci bàkkaar yi la kon nag dëppoo bi ñu dëppook ak ñoom ci nangoo nangu leen a roy ci xeetu ñaawteef yëpp mooy yi loolu moo tax yonent bi ne buñ du bu ñu duggoon ci paxum bëtt sax ngeen fekk leen fa waaw ndax pax moomu mën nga fa fekk uh, jaan ñàngoor mën nga fa fekk xeetu rab bu bon bu ne mooy bàkkaar yi lay dugal mën na la indil sànjum yàlla bu ne te yàlla nag ay sanjam ay façon la waaw sànjum yàlla ay façon la waaw ay façon la def ci am yu garaaw am ci yu garaaw a garaaw waaw ba tax na eh, dëppook ñoom jaaduwul ba ci comédien yi waaw comédien yi man damay wax ni eh, mauvais choix la waaw magum jëm ami doom di fecc waaw di def yu ñàkk fayda yoo xamante ni kenn xamul nu mu tëdde loolu du choix bu baax waaw du choix bu baax mag am na foo xam ne boo fa xasee toll bu dul sa diine sax sa âge mayu la ko waaw waaye nag comédien la waaw comédien la comédien fu mu am ci alquran comédien fu mu am ci alquran boo dee comédien itam nekkal comédien bu diiñ waaw xam ni nga koy defee waaw waaye comédien boo xamante ni tabarakallaahu ya ngay def yëpp dëppawut ak sa diine dëppawut ak sa aada lu dul rek te tubaab bee la gëmloo ne la comédien nii lay mel loolu itam day bokk ci roy ci col gi itam ah tabaarakallaahu da gis koo xam ne formam mayu ko mu sol pantalon mu sol lu seere ci moom waaw topp mbett yi su ko defee fu mu romb ñi ne xanaa kii fu mu jóge amul mbokk waaw fu mu jógee amul mbokk ndax col gu bon te dara taxul mu def ko lu dul rek niru nirulu tabarakallah tubaab yi te moo di yahud ak nasaraan kon da gis mag moo xam ne cen na muy waxee sax xam nga ne wax bi jekkul waaw jekkul parce que am na kàddu yoo xam ne mag waruta waxee wax mag la ñu xam ci moom surtout magum julit mooy wax wax ju yiw wax ju jekk wax ju rafet waaw tabarakallahu ba tax na kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ñuy dugg ci musiba sax moom yéeféer yeeg yahud yeeg nasaraan yi bu ñu demee ba dugg ci musiba sax daa ngeen leen ci fekk te mooy li mu junj ci paxum mbëtt mi noonu la ko imaamu Nawawi eh, nettalee mu mel ni kon nag lii yonent bi sallallahu wax mën nañ koo jàppee miracle bu feeñ ci jamono ndax na mu ko waxee woon day noonu la koy dundee ci jamono comme na mu ko nettalee woon te booba ak léegi ëpp na junni at moo tax fitna yooyu euh, moo sonal jigéen ñi waaw moo sonal jigéen ñi waaw moo tax noppalootuñu waaw yàlla indil ñu nag bu jigéen ñi dee fitna rek dégg nga ci euh, góor ñi kenn dootul noppalooti waaw fa fitna fa fit fa fitnatu nisaai wa fitnatu lmaal wa xubbu shahawaat wa xubbu sultaan wa siyaada wa zaama kulluha fitan yëpp ay fitna leen yoo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne balaa addunaa tukki jigéen daa nekk fitna alal dana nekk fitna nee na plaisir dana nekk fitna nee na nguur dana nekk fitna nee na ndombal tànk dana nekk fitna su ko defee yëpp nag fu muy dugal doomu aadama mooy ci ay barabi alkande yoo xamante ni du ca mucc mukk nee na bokkoon na ca yi nga xamante ni tuddoon na ko moom yonente bi sal allah wasallam moo di waxoon na ne balaa adduna tukki daa ngeen gis mbooloo moo xamante ni daañu àgg ci fanweeri nit yoo xamante ni kenn ku ci nekk dafay woote ne moom ab yonent la day woote ne moom yonent la mooy lan muddain nubuwa ñi nga xamante ni dañuy woote ne ñoom ay yonent lanu yàlla leen yónni ni mu yónni sayiduna muhammad yonent bi waxoon na ni balaa addunaa tukki daa ngeen ci gis fanweer loolu nag incha allahu bëgg nañu ko tas ci waxtaan wii di ñëw e, wax leen ñi nga xam ne jotoon nañ ko woote ci jamonoom e, tabarakallahu Eh, ak ñi nga xam ne woote nañu ko ci ginnaawam eh, incha allahu ci waxtaan wi di ñëw eh, dañu ko gën a tas gën ko leeral kon nag seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ci ashratu saa ànd ak seen xarit seen soppe Makhtar Dieng Ndiaye ci seen émission alhidayatu min alkitabi wa sunna ci Safina FM kon nak tabarakallahu ñu tegandi nonu suñu baram ba talata ak jàmm ci waxtu wi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh